ci barke mamou sharif mi muy sayyid wujud sallallahu Alaihi Wasallam. Al alxaaji moodu juuf mi nga xamne tay mo fi nekkal njabootu mam ngari djouf ak ñam bokal ñepp yalla yalla doli ko wér yagal ko ci suñu kanam kaddu yi ma wax nak du sama kaddu yi yi Sall di sama kilifa di suñu khalifa ñu ñu bokk ci ci bis bi tam bokk nañ ci nag sax di rafetlu liggéey bi ustaas bi doon wax léegi xaw ma ustaas la xamab sëriñ ndax dégg naa mu gis ay siyaax siyaax talsamiya yu mu dugal yoo xam ne ustaas léeg-léeg bu mel bu melee ni man du koy xam waaye jërëjëf andi euh, xëccal nga ñu andi lu ay xewal yu bare bari loola seen domaine la yéen ñun ñi ci des nag ñi ngi wër di wax rek ndax li ñuy wax def nañ ko wala defuñ ko kooku c'est autre waaye yal na yàlla def ñu gëm suñ bopp d'abord bala ñoo gëmloo kenn leneen ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam alquran nag ñuy nettali ne amana rasulu aoudu billahi min alsheytani irajim amana rasulu bi ma unzila ilayhi min rabbi bu ko gëmutoon yonent be njëkk gëm lim andi njëkk gëm bopam njëkk gëm alquran njëkk gëm boromam lolo ko mëna may kum ne kii yalla nga nangu bu yalla na wak taxé li moy alquran ñu dëggal ko kon lolu yalla ñu ko yalla boole defal kan lu xew dañu wote ki wote lu mu wote moy yalla jang alquran zikru usna lañ man ñaanal ñi dem ñaanal waa dëkk bi jàpp naa ne nit wootewut lu gën loolu nit wootewut lu gën loolu comme nag ñoom bañ ko wootee ba bind seeni kayit dañ na gaa yi kaay leen yàlla na acca dem leen yàlla ne istajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuxyikum waalamu anna allaha yaxulu bayna almar'i wa qalbi gis nga fofu day seigne oustaz ya ne ko ma jakarlo rek lay def référence yow lay def référence ndax ya don wax anna allaha yaxwulu bayna al mar'i wa qalbi man huwa al mar'u wa ma huwa al qalb foofu mën naa seet diggante boobu buñ ko godorone def ko autoroute bu noy nga xamne bo ne fër fi ne fër fe ne avion tek fakhat aflahta fil hayat texe nga waaye soo ko sàgganee ba mu ami kàmba ki ay dégg ki bant yu fi ne sa avion du dem sa oto du dem sa welo du dem sa leneen du dem yal yàlla musal ci loolu mooy li nga doon wax ne xol yi yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam addis la nee nañ loolu laay wax li ngay wax dama naan nee nañ yonent bi nee na innamal mar'u bi azqarayhi bi yi lisaanihi nit ñaar rek lañ koy xoolee benn xol ba lam nëbbu te xam nit ñi xamuñu ko yàlla moo ko xam walisaani ak la muy wax bu ko defee baax du su ko defut torox atamuruna naasa bil wa tansawna wa antum tatlunal kitab ma fala taqilun xanaa da ngeen a dof nee na moo tax ñu laabal xol boobu di li yittewu waykat ba na inna sunubal yawmi kal amtaari falaasimu maahiyatal awsaari bakkaari tey mi ngi mel ni mi ngi mel ni taw moo ko gën a bari sax mu ne kon na ngeen taxoog lii far bakkaar muy salaatu ala nabi waaye mu ngi ci jubloon salaatil fatih mu wax ne bon ki woote lu baax la woote yàlla ne nañ ko wuyu biñ leen wuyu see fekk nañ leen ci lañ ñu woon ndax bari na ku lay wooxee ci lu baax woo la ci yàlla nga dikk doo fekk yàlla te dootoo mën a dem du am kon jërë jëf ci woote bi waaye jërë jëf ci wuyu bi oustaz wax nga ci sóoratu fatiha sóoratul fatihati du noonu la waaw sóoratul fatihati moom mi nga xam ne moo ubbi waxu yàlla ci ñun ah, muhammad sallallahu alayhi wa sallam di fatihul xalqi mu ëbb ubbi bindab yàlla ci ñun foofu iyaaka naabudu wa iyaaka nastayin nga wax moom la gaa yi wax ñun ñëpp man toujours moom lay wax léeg-léeg sax ma yàkkamti ba ne yaaka yaaka naabud wa yaaka nastayin léeg-léeg ma ne alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi diin yaaka naabud wa yaaka nastayin idina siraatal mustaqim nga ne mustaqim man ma ne muttaqim siraata lazina an'amta alayhim man ma anamta anamta màggal nga nama yen mu ngoog xayril maxdubi alay wala daalin amin saar boobu ak li mu yaatoo li mu yor ci mbir man baatu iyaaka nax bu ji rek waa iyaaka na sin est-ce que ñun dëggu nañ ma dem ca gannaaw da nga bismillahi rahmaani rahim lépp lu may def maa ngi ko jublu ci sama xol wala ma jëfe ko ci turu yàlla wu sedd bi laahu moo tax gaa ñuy contre allah allah allah dañoo xamut oustaz yàlla lu mu wax du de faskuru faskuru faskuru laaha faskuru ordre la bu yàlla jox jaami ne tudd leen kat la ñuy tudd laaha am na am na xabar du mufrad la wabnil munaadaa ala ma kaana murtafian bihi wa qul ya imam muadil wala tamili wa in tunaadi mudaafan aw mushakilahu qul ya rahiman bina ya xaafira salali ca naxu faskuru ñu ne jaam yi leen mu ne ku ngeen di tudd mu ne allah est que kooku am na xabar kon lu ñuy doyee xabar julli gi nga taxaw di julli ba nga rukkoohee ba sujjoot yow laahu nga sa tànk yi laam-laam loxoy al alsaqeer eh, lam lam bi ci def alsaqeer gi di bob bi muné akhrabu ma yakunu al abdu ila allah wa huwa sajidun kon defé na né gaay dañu dissé ki batay musuñ ko waaw kum nanu day da nga da nga mar mar dana la rey waaw su ko defé nga né limay def deglu ko dé sama tol bi may bay ak li may bëgg def muy ñaan gi lepp maa ngi koy def bismi kan allah nga ne kuy allah mu ne rahman ku fi am dara mooma ku fi am dara mooma kon mooy rahman moo dambe xéewalu kaw ak suuf ci planète bi ñu nekk rahim mooy faye ëllëg rahman day maye rahim day fay saleer la rahman mooy taw bi wàcc ak ndox mi ball nga roose ci sa tool rahim nag mooy robine bi dangay fay boo fayut bokkoo kon ku jëful bokkoo foofa nga ne alhamdulilahi rabbil alamin damay mëbëstal rek ndax temps bi bëriwul li ci des quarante cinq quinze minutes moo des nga ne alhamdulilahi rabbil alamin man day maa ngi sant yàlla alhamdu maa ngi sant pourtant wax nga ko bi ngay julli da nga koo xamut bi ngay julli wax nga alhamdu nga ne alhamdulillahi rabbil alamin nga loko sante mune ala ni amihi saabiqa ci xewalam yu rëy yi nga xamne ne kullal xalaayix dañ ne mbindeef yëpp waw loy añaan bon a ah, señ bi nga ne xewali yalla yi mat na binde mbindeefam yi waw lo ci bon sama gor gu bax ga sëriñ Moustapha Ndong rahmatullahi wax mune ñam woo xam ne boo ko xoolee ba ba ba boyut du tax nga di nga mos ca waay waay lu tee nga tee sa say bët loolu mooy jigéen ñi la daganul nga di ko xool ba far di daanu ci miir bi animiste bi Abdoulaye keneen picc mi njanaaw li oto bi leneen abdula waaye nag ibaadu boo déggee ibaad yi mu laaf ca yaaga qul yaa ibaadi ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna la yaxfiru sunuba jamii'an innahu huwa rahim kon sunu boroom jaami boppam yooyu nga xam ne moo leen moomalal boppam gannaaw bu moomee lépp ñooñu la yàlla dencal juróom-ñeent fukki bi ak juróom-ñeent bés pénc waaye nag ku ko doon waxati léegi defe naa man bu ngeen di wax damay jàng rek di déglu. waaw yërmande jooju yàlla amu bari ba dee. loo ko añaanee keneen foofu ñu waxee rek nga day dem sawara ah fu wax rek nga ne kii dadu nangam day dem sawara am sàcc la day dem sawara nangam yàlla bëggul ku ko teegalal tuumam ji ba mu kookuy tuub kookuy doon tuub ñaata la rey ay nit ñaata ñaawteew la def yaakaar na ne moom bu dee itam bu duggee ci lislaam itam dee su ko jéggal bàkkaaram aaya bi wàcc na ko yonent waxal sa gaay yi ne leen ak sama gaay ñi nga xam ne asrafu ala anfusihim seen ak waxambaane yëpp dañ koo dem ca làmb ja asrafu ala anfusihim seen ak waxambaane li ci ëpp bari dañ koo dem ca taaxuraan ja asrafu ala anfusihim seen la ëpp ci seen ndaw yëpp dañ koo gàmbaal ngeen baal نيلين بون ديمي با غيس دي لولا باخاتون ني وانيكو ديلوسي نيلين لا تقنطوا من رحمه الله ولن ناغو ولن ناغو دي داخ ان الله يغفر الذنوب جميعا يالا دنا ديغل بكر ييب موتاخ فوفو امنا سيو سيو تا والو شرك خمغا سما كلام غير ني ري دنج بار داغي ديغنا يالا نينا ان الله لا يغفر ان يشرك wa yaxfiru ma doona salika mu mel ni bon yow yàlla mu bàkkaar sur surk boobu pare tout pour bale ko waaw bakkaaru sirk buñ tuubut ba dee la yàlla ne du ma ko jéggali waaye bakkaaru sirk bi borom def ba yàgg mu xam ne baaxut mu tuub dugg ci lislaam fokk yàlla jégal ko di moo ko wax laa taqnatu inna laa yaxfiru sunuuba jamii'an innahu huwal gafuurur rahiim mu ne kon rahman rahim ko buma toppede yagg ngana maliki yawmidin ma mba maliki yawmi bo jange war malik ngay wax bo jange habs malik ngay wax defena way bu mu ci mëna don ne nga yalla mom mom bis penc ngi ñew ci sa yoon ban ba nga ne diw safa la jëm fof nak gabal ma fof la firi bu mu leer leral ko gay bu baax maliki amaliki waaw waaw ñaari ñaari xilaa la rek. waaw déedéet ñaari xilaa la waaye rek loolu loolu doyul de. waaw doo doo mottali ko ah déedéet <laughs> ah. benn am na yooyu moom boo ci duggee day indi rek comme comme li nga ko bëgg a sëlaat. waaw bëgg a sëlaat na ñëpp jërëjëf. ma ne waxoon ba dellu gannaaw waaye dama nen dama yóbbu ko sëlaat. Malik ak Malik man maa moom xoolal man malaka haasal jihaas ku moom bii nga ne man ana Malik maa ko moom. والله هم ملك هذا الجهاز مجبورا انا والله لا ايوه جزاك الله جزاك الله مني كون يو خمغ نه يالا مو يور موي بورم الاخره الله نعم. كما كان ملك الدنيا نعم. واو لو سوخاتي نيت كي لو سوخاتي نيت كي با نيوليم سي موي جولي كاس نيو غا خيبال كوكو سراكه يو بري يوي نعم. تي بنتي Ah, léeg-léeg nga dem ci mbéj nga gis ku ne nii mel mel sa bopp rek laay wax xam naa mën na jékki naa ah. nii di jeex sa mi ne la waaye yow mi yow mi ne xanaa doon waaye man bokk maag yéen man quatre heures yàlla laay yow wala trois heures laay yow man danaa def na loo ciy wax wa maa tafaaloo min xayrin ya'lamullaah ne lu ngeen def ci ba lu baax yàlla xam na ko jarte wax mu des nag iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin waxuma ca kaw de taala waxuma ca kaw ci suuf kon ca kaw laay wax man ba ma koy jàng dañ ma doon iyaaka yow kott dong dong dong ñu xasru ko ne yow kott dong yàlla naabudu la ñuy jàmm wa iyaaka yow dong nit kott dong dong ndax say la ñu sàkkoo dimbandikoo mu des nag ndax li ma wax dëgg la wala dé am keneen ku ne ma léegi kat fireetut noonu ab sëriñ la de mu ne fireetut noonu mu ne muy firi léegi mu ne iyaaka yawit yow yàlla na abudu bokk nga ci ñi ñuy jaamu ndax kenn jaamatu fi yàlla dong mu ne ko iyaaka yawit nastayinu bokk nga ci ñi ñuy dimbandikoo waaye du yow dong ana kan waat ne moom yàlla dong la dimbandikoo kan bu ko mën a waat yaakaar yàlla bi rek sëñ bi sëñ gaa yi bi mu des beneen bi nag boo xam ne neexut a wax boobu jay ñay jay seen yëf yooyee kon boo ne yaaka yow dong na abdu la ñuy nga gis ne kon li ngay jaamu lu nit di rek mu ngi ca fa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwaxidu kooku beneen affaire neexut a xóot waaye lu mën a xew Ibrahima Sall mii di wax de bu xëyee jàng faate ba noppi bu génnee jàkka ji boo wëttuwul bala moo yëgg këram génn iyaaka naabud wa na nastayin ak a bëri génn ci jàkk ji avant ah, Masamba ku fi tudd Masamba nga baal ko Masamba mu ne ko Abdou Khadja mu ne waaw ngóor si moom njiitu toolam bi loo ci xam ne ah tool bi day waa ji dana ko nangu rek man day ñëw si man waxuma dara moo tax dama koy seetaan mais man xam ñu ma wér ni si ma rëdd di baaraam ah sëñ sëñ bi noonu lu muy demee mbaa ma dikk àbb la tool luy la tool àbb la ko nga dimbale ma jox ma ko ma bayee bay ba wàll ko delloo nga toog di ruujaan njëkk maa tàmbali ruuj nga wax nga ne yëf yi kat demee tudd noonu léegi ana yaakaar naa bu doo yaakaar sëñ wala ma ñëw ne sëñ bi abal ma tool maa bëggoon sa tool ba fare bee ko nga bay ma ma abal ma ko ma jox la 15000 eh, francs mu ne ah yow de mën naa laa dimbale jox la ko ma jóge fi waaye jële dikk ak cent mille wala soixante quinze mille ne góor gi tool bi man moom rek laa soxla woon ah! naa doy waaye nag waaw baax na indi rek xam naa kay dama koy seetalaat feneen mu dikk nga ne ko sama baat ba daa ñibbisi te amul fu ma xam ne amatuma pexe moo tax ma jox ko waaye maa ngi lay jéggulu delloo ko 15000 moo tax ma daan wax ni kasuratil masajidu fil bilad وزينا واستخرفت باحسن الزخارف ولكن وكسرت الجماعات ولكن اين المسلم حقا؟ واين المؤمن حقا؟ مسلم بريك مو ديك دافي جاك ييب غيس نغي نيغي كوماسي دي نغي بال ما يومي دون لاج افير يي جاك جاغي ني رافيل لول واخ دغ يال تبارك الله يالا يالا فاي واي بو تو تاكوسان جروم ني دين في جولي اللي ما نغا نيتام bootu laa wax de li ma gis rek li ma jàpp rek laa wax xaw ma moo fi ne am déet takkusaan ak julli gee naanaka ñu ci bëree bëri bëri sama classe gi yëpp noonu la ñuy def fajar gi nga mag ñi mag ñi nga xam ne di ak ñi bëgg a tukki ak ñi bëgg a teel a yeewu ñoo nga foog nga fay fekk dafa nga dëkk bii ni mu réer nii nii nii nii bu fekk ñëpp ñëpp ñëpp ñëwoon nañ ci jàkk di julli julli si suba du fees dell waaw dëkk bii ni mu reyee nii sëñ bi ak ni ñu li ma leen gisee man maa ngi bëggoon bant bu ma sécurité ci sama eh, bi ma kiihee bant eh, xadd bu ma sécurité mais dafay jafe parce que ak yomb na bant bu waaw ñu tabax néegi ba mu ne joj bàyyi néeg daaray alxuraan jii di ko yelwaanal baax na loolu waaye gënut de bu ko ne defoon tey ñaari junni wala ñetti junni te wóor na ma ne am na ñu dajale ko tabaxal ko ko tabaarakala kon duñ ko yelwaanal fii yelwaanalul suñ bâtiment yi kenn ci yelwaanul miiram kenn ci yelwaanul sa toilette lépp ci sa am am nga ko defee xam nga lu xew dañ gestuwaat affaire yi foofu laa yem nag ndax garab yi yéen a bëy. rawatina nag gone Ndioufène yi moom rawatina gone Ndioufène yi. yow moom bi nga bokk. waaw ñeent ñi di moo des ñeent. waaw macha allah. su ko defee kon. masalam dëkk moom boo dee dëkk ba koy. waaw moo koy firi moo koy firi. ah léegi tey góor yi góor yi ba nu sew ba nu oto bi ba nu su ko defee loolu euh, li oustaz wax rek moo fi ne jàkk yi bari na. rafet na lool waaye coow laa ci na koj dafa am benn bu ma doon bind ma def ne ma def mawdu ba al maxaabi u shaytaan boobu laay tëjee waxuma maxaabi u shaytaan laa wax maa nga siin yi seytaane bokk boo ko bëggee xam demal ci jàkk ja ah gis ngeen ko ni naay boo bu tukki woon bu tukki woon xam ne bu ñëwut naay jiite boo dana luye oto 5000 francs dikk pour bàyyi waa ji jiite. ana ji booba. bilaal boo xam ne bu laalee deuxième naay. deuxième première bilaal bi. imam rek la jubóot parce que les fois ñu ànd def affaire. da nga xaaral sa benn benn woon fële bu am ak yeneen mbir mi di ma jël mbir fële bu ñu def ko ci kees bi yéen lañ koy wax. kon boo nee te boo nee bu sàpp si bu buñ taxawoon fii tey ku mel ni man buñ taxawee ne la dadul ci kanam wala demal ci gannaaw rek nga daal di gis sa bopp. nga xool ne daal da nga war soppoo nga ne nii. da ko ñaanoon jabar mu bañ la ko may nga ne nii. mu laal sa bopp nga woo. ndax yére bi daa tilim sa yey lee ma ne ana ana jullit. benn saxaaba ci saxaaba yi damaa jàpp ne mën naa nekk Suhayb bu Ruum yi Suhayb bu wala Bilaal wala juróom ñooñu nga xam ne ñoo ko doon ñaar ci islam day def bu jullee su ma fàttee tur ngeen fàtte ko bu jullee rek bu imaam bu yonent bi ne asalaamaaleykum rek mu daal di daw génn jàppee gi ba yonent sallallahu alayhi wa yow damaa gis saa buñ sëlmalee rek daal di génn dem lu tax mu ne ko wallahi ya rasulallah laysa fi daari ila sawbun waahid ah. non yéen mbokk la xam moom. nee na mu bi sallallahu alayhi wa sallam def ko lu tax buñ seen ma leen nga génn mu ne wallaay sama kër benn yéene fa ne bu may bëgg a julli si sama soxna daf koy daf ma koy jox ma làmbaayoo ko yow julli si ma gaaw bu ma demee jox ko moom ma làmbaayoo julli te tardé waxtu wa ñaata mbasee boo nit suñu bare yi ñaata. ñaata te kii benn boobu wax dëgg war na am daal su soxna si demee julli ji moom mu dugg ca néeg ba tëj ko ndax ñu bañ ko gis su ñëwee julli ji bi jox soxna si mu nekk ci liggéey bi di dem ak a ñëw benn boobu te terewul manqué wul benn heure jàpp. loolu kon heure ñu defaraat suñu bopp ci sëñ bi wax defaruwaat ku ne seet sa bopp. billaay man de maa ngi loo xam ne du ma ko ñëw mukk ci lu bon waaye yéen nag. ku mën a waar ku mën a waar ne seet nga ah ku mën a ne seet nga man de mënuma ko kon nag defaraat réew mi defaraat addina bi du dara lu seetaat sa bopp seetaat sa bopp du dara seetaat sa xol seetaat sa xol du dara lu may nangoo ommatu ci kanamu yàgg gannaaw yorente bi ak ñi fi bàyyi waaye tuutiwul tahtadu su ngeen ko toppee rek jub wa man yuti rasula faqad ataa allaha ku topp yonent bi roy ko te nga mën a fekk da nga am jub ordonnance baa ngi fi malade baa ngi fi docteur baa ngi waajee fajuwul wasalaamaaleykum wa rahmatullah gox yëpp ñu ngi fi ak euh, Serif ñu ko fi teewal ak euh, suñu monsieur le maire ak euh, wa brigade bi ñi ngi lep ñomit nyop taxaw lepp ñop ñep bis bi yitel len kon ñi profito di gatal, ndax dafa am luñ ma yoni man dambe Dambey fa Fallou Ndioufène wala ñi tudde ko le personne ressource parce que nin mom man nga nek ressource te do riis yalla mo koy dogal mais bép idée bi nga xamé ne mo doxal fen mom mo ñu ñor lepp li nga xamné ne juven wara tax Njuufeen dem ci kanam mo ñu ñor ñi nekk fi ak ñi bañ fe nekk biñu fi nekk si loolu lañuy xam képp ku xam commune bi nga nekk président euh, commune wala nga nekk chef de village ya nga gis Dambey si njataay yépp cette fois ci nak li dal ñepp moma dal dama genn dem sakku ji leneen mais téréwul sama lepp ma ngi Njuufeen ba tay tay ji la gëna a bëgg Njuufeen tey jii laa a dogu ngir Njuufeen di am lenn lu ñu ñor ñi yaakar na yeen ñor na leen. lii ñor du lenn du politique du dara ñun ñoo fi nekkoon nekk homme politique bi ñu demee ba nga xamee ni politique bi dafa changé ñu war ko changé jëmale ko si dëkk bi muy lan nag kenn ku nekk jéem a defar sa gox ba nga nekk ba kenn ku ne fekk la ca man loolu laa gëm xaaruma monsieur le maire xaaruma keneen xaaruma keneen muy président muy keneen dama bëgg jeune bu nekk nga taxaw xam ne sa dëkk yaa ko war a dobelool sa bopp nga tàmbali bay kuy ñëw fekk fekk la ci loolu moo tax ñuy jóg. bi ñuy njëkkee mooy dañu am benn muskila suñu muskila bi bi ñu am mooy li waraloon jataay bi tey maa ngi jégalu yéen Modou sama kilifa gi maa ngi lay ziar maa ngi leen di jégalu bu baax muskila bi ñu am mooy li tax muy jataay bi tey jataay bi tey lan lañ fi def wàcc alxuraan ak ñaan dañu am benn problème problème bi ñu am mooy suñu daara ji problème bi ñu am mooy suñu daara ji daara ji moo ñu ñor. dara ji depuis euh fukki at ak ñaar suma jumul ba lañ ko fi sambu ba légui mais nimu tollu ni di 4 mètres carrés non la tollu ay plus de ay 70 élèves wala 75 élèves nek ci xatna na trop ñu bëggon nak képp gi nga xamé ni ñu fën ñor na la wala nga nekkon wala nga nekkon ko xamé ni daara ñu fën ni mos nga fee jaar ci talu daara yi fi nekkon wala képp gi nga xamé ni alcorane ñor na la nga yëkkati sa dërëm boobu def ko yi sabilillahi ñi def ko si daara ji yëkkati école bi dolli ko loolu rek la ñu soxla soxlawuñu leneen li ñuy soxla mooy alxuraan bii ñi tax ñi dajee fi ñu mën ko jëmbal fii si Ndioufène ñaata taaru daara ñoo nekkoon Ndioufène tey dem na ba nga xamee école bi kese moo fi nekk te école bi munul munul puus munul paas ñu ne ay nitu daara ñoo nekk fii ay nitu alxuraan ñoo fi nekk damaa bëgg képp gi nga xamee ne alxuraan ñoom na la yi sabilillah nga def ko te yàlla tax nga ñëw def ko fii jërëjëf Modou yalla na yalla barkel li dess ñu def ko fii jërëjëf sama sëriñ yàlla na yàlla barkeel waa incha allah waa incha allah di la sant di la gërëm euh, di la jaajëfal sa taxaway yaa ñi nga andal yépp nak di lu teew gën fi teew Euh, du ñàkk ni euh, euh, mag ñu baax ñi bàyyi nañ fi ay digle yoo nga xamante ni ba ngeen ca tegoo ba léegi daal gisu leen ni benn ndog-ndog am na si macha allah ngi lu ngeen ci dolliwaat ndaw yi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk bi rek. te yéen ñi nga xamante ni yéen a fi nekkoon ak mag ñooñu noonu ndigal yéen leen laa jox ak tere yéen daal leen tere hmm. ba ngeen ca tegoo ba léegi njariñ la ngeen di gis ak yokkute rek ngeen ci gis ah, gisu leen ci wàññeeku boobu ba léegi yaakaar naa diñ ci mën a waxtaanal ndaw yu dëkk bi ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo fi nekk ak yéen waaw <coughs> waaw mbokk mi kontaan naa ci laaj bi nga ma laaj waaye dama bëggoon nag bala ma cee dugg hmm. ma parasanté la ñi fi toog ndax sama mbokki kilifa ñoo fi toog hmm. man mii di wax ak yow kii mooy sama kilifa ndax mooy sunu président mboolem chef de village yi commune de Sadio. Mhm. bi ñu bokk kii mooy sëriñ Balla Niang. Serigne Balla Niang waaw mooy président chef de village yi. Mhm, macha allah ñii ci toog ñii yëpp kenn ku ne chef de village la. Mhm, macha allah waaw ñoom ñii ñëpp ay chef de village la ku dul chef de village néew fi ñëpp chef de village lañu. waaw ñu lu toogaay beeg euh, teew gi ñu fi teew loo. di sant di leen gërëm. macha allah yi nga wax nag euh, mag ñi am na lim ñu bàyyee woon. mooy jàng jaamu yàlla ak liggéey ci loolu nag lañu nekk ba ak si bis ni tey ñu rafetlu ko bu baax nag te itam ñu fonk ko bu baax li ñu doon moytaloo ndoo it doon nañu moytu doon nañu sant ñu mag ñi doon nañu sant moytandiku lépp loo xam ne ak tooñ la wala yàq la ak po mm. loolu moom fii ci dëkk bi euh, ca mag ñi dañ daan wax ne ku fi reer ba pare jaar ci penc mi ba jàll te déggoo baatub sikar maam da nga gaaw daw dagg nga naan dëkk bi tey jàmm néewu fi xam naa ne fitnaa fi nekk moo tax daje wuñ di sikar waaye fii moom lu rek moo fi nekkoon foo jaar guddi rek daga dagg ñuy sikar nekk ci jaamu yàlla ah, bu dee bëccëg ña nga ca liggéey waaw ah, léegi la nag wax dëgg yàlla mm, loola ba léegi ñoo ngi ci léegi nag la tukki yi xew ba xale yi di dem ak a ñëw mm. waaye alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax nag mm. ndax itam nag gis nañ gis nañ gis nañ li fi mag ñi jëmatoon mm. ndax bés bii ñuy taxawal nii ci bés eh, ci dëkk bi ñun gëm nañ ne lii ñaanu mag ñi ak cantaane mag ñi moo ñu ko may bañ agsi fii ndax wax dëgg yàlla bés boo xam ne ñoo ko tànnal suñ bopp ñun itam njukkalee ko mag ña muy jàngum alquran wàcc ay kaamil def ay ñaan fu ñu ko yendoo ba deux ñu julli tusubaar bu ñu julee tusubaar xéwlu daal di tasaaroo. du ma sa soppeeku ci loolu rek la ñuy wéy. amul kenn benn programme boo xam ne dinañ ko def ci dëkk bi boo xam ne bu dul programme mu alquran bii. fonk nañ ko lool. amal nañ ko doole lool nag. ci ñun ku ñu ko fonk it fonk nañ la nag. waaw yéen ñi nga xam ne ñëw ngeen fii itam ak sama mbokki chef de village yi nga xam ne bàyyi nañ seen yitte yépp ñëw ci bés bi am nañ ci ñoom mbégte lool mm-hmm. di ñaan yàlla nag yàlla boole leen fay mm-hmm. euh, ci barkeb alxuraan bi ñu fi wàccee kenn ku ne euh, yàlla tibb ci euh, barkeb alxuraan mm-hmm. dëxëñal la ko say mbóot ba nga xam ne say yàqu-yàqook say am di jàmm say jafe-jafe yépp yàlla saafara ko ci bés bi ci yàlla alxuraan mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barke yonent bi am salaatu wasalaam kontaan euh, baax kon daal mu mel ni bis bi euh, hmm. ñu ko ci gé tàmbalewul ci dara génnewul ci dara lépp jàng alxuraan la jàng alxuraan rek la jàng hmm. alxuraan rek la ak def ay dog di ñaan hmm. ndax dañoo bëgg képp ku fi teew boo mënee jàng alxuraan nga barkeelu ci alxuraan jàng alxuraan soo munta jàng alxuraan it nga téye sa kurus dana am turi yàlla yu ñu fiy joxe Mm, mm, sikar ku ne man nako ko sikar ku jàng mën na ku jàngut mën bu ko defee buñ ne wax len baat sangam mm, fukki yon nga yor sa man nga ko ki jangut man nako ki jang man nako ki jangit man na dem jang ci alxuraan waaw lépp la ñuy def dana ñaan dana jang ngir jëmi bes bi rek at mu jot nak dañ koy def sak ane dañ koy def waaw am na solo jëf kon ma joxal ñu uh, señ bi rek micro bi señ bal bo mané kini bismillah ba léegi ci ànd beeg Daaru Bakhoum TV rek euh, mu daal di dugg euh, ci kër yi diine yi bépp programme ba nga xamante ni programme mu diine la ak euh, yokkuteeg réew mi incha allah Daaru Bakhoum TV ba fas yéene dugg ci biir rek daal leen koy tegal sëñ bi maa ngi lay nuyu. ñoo di la talal suñu micro rek di la wax ni. jotaay bi xam naa ni toogaay bi métti na waaye nañu am ci ay waxtaan yu ndaw rek yoo nga xamante ni euh, euh, du gàtt du gudd macha allah euh, lan nga yëg tey bi leen siitu Daaru Bakhoum TV bi ñëwee ànd ak yéen liggéey bi fas ko yéene jàllale ba nga xamante ni képp ko nga xamante ni daana wax ni joti jot siwul fii ñu daal leen koy wan lan ngay wax waa Daaru Bakhoum TV di leen nuyu di leen daral tey kontaan ci yéen lool Daaru Bakhoum macha allah seen liggéey rafet na doon nañ leen dégg lu yàgg waaye tey lañ leen masa gis ñu bokk jataay allah euh, maa ngi nuyu sëñ Abdou Diouf mi nga xam ne moo dalal bis bi euh, di ko woote te lislaam rek tax mu di ko woote daanaka woote nag waaye ñun bii yoon lañ ci yàlla masa boole kon day mel ni ñun ñoo ngi door a ñu ngi door tàmbali woote bi Abdou lépp loo ci bëgg ak lu sa xol nekk ak loo ci bëgg ci lislaam yal na ko sa borom dogal ñun de suñu xol sedd na guy ndax boo amee bis bu mel nii boole nu ci bisu alxuraan ku la ci boole rek ku la sopp la ku la bëgg la kon euh, noo ngi ñaan yàlla yàlla guddal sa fan te yàggal la fi ndax nun ñu ànd fii ñëpp kenn ku ci ne place bi ma tooge mën na koo tooge muy sëñ ko defaal mi di Mor Ndaw Male Mor moom moom moo ko jëkkoon a yor sax bi muy ñëw ci man moo ko teg sama loxoy moo ko yore ak Moustapha Saxume ak Ousmane Top ak sëñ Laat Mbeng Male euh, kon jataay bi dañ cee sant yàlla sant ci yonente bi te jataay bi yàlla na yàgg ndax jataayub lislaam ku la ca woo boole na la ci mbirum yàlla su doon nanoo woo ci leneen lu bokkut ak lii duñ ko sañ bañ a wuy si waaye lii nag moom daa sedd suñu xol dafa sedd suñu xol guy yal na yàlla yàggal seen taxawaay eh, noonu mu waxee ne nag dëkk bi mag ñi da leen waxoon ne dee leen jaamu yàlla tey moytu tey moytu ak tere tey moytu tooñ tey nangoo liggéey loola mooy wër àdduna ji moo ko moo koy jagal ndax jaamu yàlla soo ko booleeg doo tooñ te nangoo liggéey loo ca dolli yàlla mën laa jàppale yàlla yàlla jàppale gis bii yàlla nañ ko tooyoo ay déwéni déwéni déwéni déwén ah yéen waa daaru baaxum nag amuñu seen pay noo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla lii ngeen nekk yàlla na jëm kanam jërë jëf yàlla na yàlla defal jàmm bisimilah jërëjëf jërëjëf kàddu yi euh, rafet na lool macha allah euh, ba ci ku ci bëgg a sànniwaat kàddu rek man mën nga si euh, daal di kii <laughs> teel teel rek teel micro bi waaw ah, xanaa doy na kay hmm, waaw doole rek ah. ñu tënk ko rek waaw ah, kon defal kon defal ñaan bi ma am lu ma def waaw waaw <laughs> kon dañ ñaan rek macha waaw teel teel rek ma am lu ma laaj tuuti <laughs> macha allah jotaay bi dafa taaru lool macha allah waaw jotaay na jafe na lool jafe na lool macha allah euh, euh, kii bi micro bi mën na jóg. Euh, waaw jotaay yombul. Hmm. donte xam ne mën naa am sax jot am na parce que nag liggéeyu borom bi subhaanahu wa taala bu la ci woowee lépp looy def da nga ko war a bàyyi. Hmm. te na ma di laaj sa wóllëre ak ñi nga toogal tey. Hmm. parce que programme bu amee rek benn chef du village sañ yeneen chef du village te ñëpp wuy ci mhm. macha allah de jotaay bi dafa rafet dafa taaru lool macha allah parce que li mu wax rek mooy ñi fi ñëpp ay chef du village la mhm. euh, kon loolu macha allah mhm. euh, bis bi laaj na ko waaye tamit euh, ngeen bàyyi seen yitte yëpp am na ay wóol ay kóllëre yoo nga xamante ni sekkante ngeen seen diggante bu dul ni que chef du village bi kese ma bëggoon nga waxtaan ma ci tuuti rek ma jërëjëf kena bi ñu sante yalla sunu borom tabaaraka wa taala julli ci mustafa alayhi salatu wa ko leer gi de mom man nañ ko wax ndax dañ ko fe fekk noonu ndax ñom ñi di cheikh du village ñëpp ci walu cheikh du village moom ñooy suñu kilifa lu jitu cheikh du village bi ndax ño bokk dekk bi juddoo fi seen kanam ñuy suñu mag ñun cheikh du village gi ñor suñu mag ko yoron andon ak ñom ñi yaaka na bi mu seen president Ah, moom muy Serigne Madiop Fall yàlla na ko yàlla yërëm te jegal ko kóllëre googu nag damaa fekkoon moom mu am ko Abdou Diouf mi ndax dama ko daan gis muy yendu si këram lu bari waaye nag da ko amoon ak ñëpp nag ndax ñooy ñëpp ay dëkkandoom lañ ñeen ñi ay magal lañ ñenn ñi ay moroomam lañ ñi ci ay sëtam lañ ñi ci des ay doomam lañ kóllëre googu moom dañ ko fekkoon te fa suñuy yéene dara yàqu ci ci suñuy loxo li nga wax moom lu wér la kóllëre na bu wér motax mu sañño ñoo ñu te amuñu droit bañ wuy ci mhm, waye nu kóllëre gi nag noonu mhm. amoon nañ ko ñom waye nak fekk nañ ko ci biir chef de village gi ndax kiñ ki ñu ki ci chef de village gi mhm. amoon nag ñoom amoon nag ñoom kóllëre eh, ñu gis ko na mu Abdou muy borom pas-pas bu rëy eh, jëf nak eh, li mo am solo inal fawahida alal aqahidi lepp lu way di jëf rek dafa wara am pas-pas ci jëf ga moy tax jëf ja soti ndax baye musa Ka da wax ne inal fawahida alal aqahidi ku ñëw fosoo wëñ nga mboros ma jagadi inal fawahida alal aqahidi ku ñëw fosoo wëñ nga mboros ma jagadi mm-hmm, mm-hmm. kon jëf lu mu reey reey reey mm-hmm. te amul pas-pas jëf je yool bari neew lool waye lu jëf tuti tuti te am pas-pas ak yene rek man na yobbu borom fo xam ne di àggu Abdou wax nak mom lol rek la mag ñi won dekk bi ndax xeyna maama fi wala ay bayam Sadio yeeg Kasaalika naka maam yaag bàyyi rek ko sanc la leen yëkkati woon mooy wut àll bu yaatu. bu ñu mën a sàmm seen ngor sàmm seen diine. ah Buur Siin ku mëndoo feen nag. ba nga xamee ne bii tëkkuun maba tëkku na ko. borom xam-xam moom ak amoon na wax jum ca waxoon. ne woon na maba joxu de bu dalee ca ko Buur Siin ku mëndoo feen yaakaaruñ mu am ndam. ndax as gor la suy dundee aw ñaxam te du tooñ. as nag bu dee du amul dundee aw ñaxam te du tooñ ku dal ci kawam defal nu dëgëralal sunuy pas-pas dimbali nu ci jëfu yiw te luñ ci jëf lu mu néew néew sunu borom nangul na ko bi barakatu rasulillahi barki Serigne Touba sant nañ ñëpp gërëm nañ siyaar nañ ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw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 الرحمن خمس سالم بقدرتك يا قوي يا متين وصلى الله على سيدنا ومولانا كثيرا دائما الى يوم الدين الحمد رب العالمين ولتف بنا وقوينا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وساليا